revue de presse. yéen kaay yi ak El Hadji Ahmed Aïdara. bismillah. xuy-xuy xamaj xamaj ya tàmbalee te ne de tribune yéen kaay ne ñi nga xam ne dañ doon xalaat ne maanaam courant bii di coupé suba ngoon guddeeg bëccëg kon lu ñuy nettali la jeex na ñooñee kon juum nañu ah maa la wax li lay exemple kon bañ leen di jox bi gën a jege kon te gën a neexa laal mooy final bii nga xam ne ñoo ko doon amal barki démboo Njaay ca Maris Njaay waaw dañoo jekki-jekki kon stade ba ni xëy courant ba kon daal di coupé allahu la gàcce ga kon dana gën a dana fi gën a yaatu dana gën a rëy yéen a kaay gi ne Sénégal nag wane na kon ci kanamu adduna wërgal këpp gépp ne mënul sax kon assurer courant ci biir stade ci biir final boo xam ni kon day dem ba jeex daal Sénégal wane na mënu ko tribune yéen kaay ne directeur général u Sénélec boppam di Pape Dieng ah, indi na kon ay gindi ca lëf-lëf ndaxte daal dinay xam leen ne taw ci boppam laa lay wax nii taw yi taw yi les ñoo tax kon ba jafe-jafe yii ñu koy nemmeeku a loo xam ni kenn mësu koo wax Sénégal gi ah parce que ko waral ak xawma eh, eh, eh, mbënn mi la xaw ma ngelaw li ak nees bi nees ci réew mi maa la ko wax directeur général u Sénélec nee na courant am ay jafe-jafe nii nees bi kon bokk na ci mooyow luy nees mooy glace gi nga xam ne kon mi ngi taw ci dëkk bi <laughs> laa ilaha illallah ay waay mbéta France l'officier ne kaay ne nees ci dëkk bi nga xam ne yow 40 degré tàngoor wee ñuy bëgg a rey ma ne Pape Dieng directeur général u Sénélec kese moo ñame lu ni mel maître ma soxna kan ci tribune yéene kaay ne xam nga ay waxu taw ci boppam kon moo taxawul loolee amul waaw taw yeeg inondation yeeg yooyu yee la mësul nekk laa lay wax ñu xola ay argument nañ bàyyi wax yooyu taw bi dëgg la mën naa indi kon xëy na yenn ci ay jafe-jafe ndax bagage yi nga xam ne kon dañoo màgget maanaam fiil yaag yooyu ma soxna na lii di feeñ nii mooy mandargaal ne kon courant ko ba suba ngoon guddeeg ba ca kon di xuy xuy xamat xamat mi ngi dellu seeti ay waay njëg li nga xam ne nee nañu day yokk kon ci wàllum courant baa ngay dellu seeti directeur général Senelec googee di Pape Dieng ci direct info ak Le Soleil yéene kaay nee bi kon duñ ci dara duñ ci yokk yokk kon amul te jamono joo xam ne kon ñi ngi waxtaanee wàllum courant boobee ndox maa ngi fi dëju léegi wàllum inondation yi laa ilaha illallah la wax lim diwaanu Ndakaaru gii mi ngeel téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn ci ay l'école yoo xam ni kon maara tey taali diwaanu Ndar gee mi ngeel téeméer ak ñeen fukki école yoo xam ni kon maara tey taali Cees a nga ak fanweeri école ak juróom benn yoo xam ne maara tey taali Kaolack ma nga ak fanweer ak benn ci ay école yoo xam ni kon maara tey taali Sigicoor gee di Casamance mi ngeel fukk ak juróom ci ay école yoo xam ni maara tey taali Fatick a ngeeg juróom-ñeenti école yoo xam ni maara tey taali kon te ndox ma Njaareem a ngeeg ñeenti école yoo xam ni maara tey taali Kédougou a ngeeg ñaar fukki école ak juróom yoo xam ne maara tey taali maara tey taali maara tey taali la ilaha illallah yéene kay ne sinistre yi day génn nañu kon ca école ya ci lu leen neexul de Walf Grand Place ne nguur gi ci boppam kon moo génnee sinistre yi sànni leen kon ca mbedd ma ah waaw waaw te ñooñee ca école ya kon la ñu ne kon sinistre yoo jee dañ leen a kon dàq ca biti te kenn defe ko lu dul kilifa yi nga xam ne kon ñoo toogal nguur ga ca giir gox goxaan ya di autorité administrative locale ya sinistre ca bopp nag mer nañ bay bëgg dee Colette Gomis ne nguur ñu digoon lam ñu digoon mooy ma Mbàkke nguur gi yëkkati ñaar fukki junni cent mille francs jox ñu ma yow cent mille francs lan la ñu xam yow appartement fukki junni la koy loué ñaar fukki junni la koy loué nga yëkkati kon ñaar fukki junni jox ñu ma yow loolu lu mu ñu mënal may mun a gàkku ne maag samay dëkkandoo sinistré yooyu nelawatuñ kon ba yandoor déedéet ñu ngi dund kon ci am torox daange goo xam ne maar deytaali yaakaar gu tas goo xam ne kon maar deytaali xoolal leen ma tey jii ñu ngi fas yéenee xam ne bokkul sax kon ak wàllum inondation yi beneen ñu dund fi mu nekk ni lay ndax ne kon nguur gi jël na ay waay ay waay te ñun dañoo yori doom yoo xam ne ay tuut tànk lañ ay mineur yor ay jëkkër yoo xam ne kon liggéeyatuñ ma yóbbu ñu nguur gi génnee sànduñu ñun lan la ñuy suñ bopp dund kon ay jafe-jafe ay jafe-jafe kese la sinistré kon di dund te jamono joo réew mi quotidien nañu Macky Sall day remanier indi ay coppite ci gouvernement bi day yokk ay ministre am <laughs> silence ma Macky remanié ñaar fukki ministre kon ak juróom la woon waaw dana dem ba ci fanweeri ministre ak benn danañu yokk kon juróom benn ministre i la ilaha illallah Robert Sagna ak Landing Savané dañuy dellu si waat Abdoulaye Bathily ca courant ba lañ ko jëmee waat Mata Sy Diallo ak Youssou Ndour seen ministère yi ñuy xar kon ca digg ba l'officier ne candidat Youssou Ndour kay xam nga ministère culture ak tourisme la ñu ko dénk waaw culture ba dañu koy jël jox ko kii di Penda Mbow ah maa la ko wax le quotidien yéen a kaay ne moo ni makki Sall day te juwaanu njaareem yéen a ngi fàttaliku moo doon xam le ne wax waxeet bii moo delloo kon suñu démocratie bi ginnaaw waaw waaw président makki Sall ne man nag président wax jëf laay def te njaareem la ko waxee woon yéen a kaay ma jamal jàngi ne Macky xam le woon carrément ne ak lu mën a xew ci ay combinaison du ma weesu mukk ñaar fukki ministre kon ak juróom waaye tey day wax jëfam goo gaye ah mi ngi bëgg mi ngi bëgg a nuroog wax waxeet nag ndax Macky kon day yokk gouvernement ba libération yéen a kaay ne ne waa yaanamar ah wax nañu Macky Sall kon lu mel ni miti Fadel Barro njiital yaanamar nee na ana rupture biñ doon wax ana lañ doon wax naan la woon woon ni nag où est la rupture Fadel Barro njiital Y'en a marre ne Macky Sall ci boppam kon ay wàllum taf yëngal lay def bëgg jël lu màgget kon am ca bees loolee kon mënta ne waaye Y'en a marre ji ne sénégalais ci boppam amoon nañu kon yaakaar gu bëree bëri waaye ñu ngi commencé nag di mer de te ñun de dañoo yaakaar ne président Macky bii ah fi nekk nii kon nguur gee ko commencé ëllëntiku di ko changé loo gaam daal ak lobby waaw waaw waaye tamit programme am ba a bitim réew ñoo commencé soppi Macky de yërnul ma la na mu ca fale ba Le Quotidien ñu yokk salaire ya muy conseiller simple li nga xam ne cinq daan fay Aminata daa bëgg ñu yokk seenu salaire ministre conseil yi nga xam ne un million lañ doon fayeeku Aminata daa bëgg ñu yokk seenu salaire conseil spéciaux yi nga xam ne huit cent mille lañ doon fayeeku Aminata daa bëgg ñu yokk seenu salaire waaye président d'accord agul déedéet te jamono joojee kër président di APR ngay tàkk bëgg ku tudagg boobu de marti taali maa la ko te Moustapha Diakhaté kat moo fi doon xas APR naan parti la Moustapha Diakhaté ci laas ne député yi di ma xeex nii du ñenn ñu dul waa APR kase bu ma doon tax xamtiku rek ak di wan ci seen ndodd loolee dafa ma ko ca jamonoy Abdoulaye Wade kon nekkul na ca jamonoy Macky Sall gii laay tax ak di wan kon ci seen ndodd dem naa ca lamb ja Elton ci le pays au quotidien ne lamb ji amul VIP ah Bombardier ak ceg nag mënuñoo fexe kon ba rëcc ma alaaji Bekaay ci suñu lamb dellu siwaat na ci coow li doxoon ko te bis boobee ne gisuma woon ku dul yàlla parce que aw ma woon benn ngànnaay ma jël lépp dénk ko borom bi rek gayndey jigéen ña day borom bi defal leen lu neex Le Soleil yéene kaay ne Sénégal daal gagné na Mali ca final ba juróom fukki poñ ak juróom ci juróom fukki poñ gayndey nekk nañ kon champion d'Afrique direct info ne kenn gañewu ba tournoi bi jeex gàcce ngalaama yéen stade yéene kaay ne xam nga kañ lañ gëj a gañe coupe ah ñaar fukki ak juróom-ñaar ci ginnaaw allahu akbar <laughs> tey lii waaye alaaji comme que ay jigéen daal ñooy dugal di dugal di dugal di dugal di dugal di dugal dugal dugal dugalaat dugal dugalaat ba muy juróom fukki yoon ak juróom dinañ ma basket la nag bokkul ak football waaw waaye waaye ay góor kay kon war nañoo mën a dugal man daal moom ku dul dugal moom du ma la seetaani sama saal bee laay ràcc teg sama caayin fu ay jigéen dugalee ba jël ko ay góor war faa a dugalee ba qualifié